ku internet yi dal leen jàmm ci seen canal bi di partout TV information ñeel Ousmane Sonko mu mari Ousmane Sonko ay tuumal dafa daal di teguwaat euh, ci kawam jëmale ko ci réew bi nga xamante ne moom moo di Qatar benn député moom moo daal di wax ni Ousmane Sonko réewum Qatar da ko daal di jox lu tollook fukki milliards ci suñu ay koppar ngir euh, bu nekkee li nga xamante ne moom moo di euh, président mu daal di leen di sédd ci pétrole bi nga xamante ne mu ngi ci biir euh, dëkk bi maanaam daal euh, waa réewu Qatar ñoo jox Ousmane Sonko dix milliards ngir bu faloo ngir mu mën leen a tibbal ba mu doy ci euh, pétrole bi ngir ñoom ñu mën a am lu ñu xewaloo mu nekk nouvelle bi nga xamante ne nag jot nañ ko depuis ci suba benn député daal di koy génne moom mii di Matar mu ngi xamle que ni réew mi di Qatar loolu la daal Seck ak ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko di wax que nii rek su fekkoon ne loolu réellement donc waa réewu Qatar donc ñoom dañuy xaar ba Sonko daal di nekk président waaye ñoom xaaruñu loolu mais juste dañ ko envoyé li nga xamante ne moo di dix milliards ngir bu nekkee président mu daal di leen di tëbal ci pétrole bi mu nekk li nga xamante ne nag tey na xel ci mbokku patriote yëpp wéy leen di abonné suñu canal partout TV jaa ngeen jëf.